sëriñ bi nag laq na ay jagle ci buur laq na ay kéemaan itam yu wóor na yi jagle itam dina yëgam yëpp ci moom lan aju ngir yàlla itam niñ janaaw di firee ay laafam naaw ba fukk soob ci asamaaw noonee la nit di yéegee di dox dox bu sore diggam ak suñu boroom ci yitte ju kawe ak pas-pas doomu aadama ci yitte la mën a yëkkatikoo ba faw xamalaaka yi waaye ci ñàkk yitte ci la mën a suufee ba suufe bàyyi mayi doomu aadama yàlla du ko bind wàcc ko ci kaw suuf ngir natt ko ak natt ko nit ki war xuus ci toolu xare bopp dafay jàmmaarloo ak noon yu am doole bu leen faatee mucc tonaw texe noonu yaa di seytaane bakkan bànneex ak àdduna xare boobu li ci taxa mucc mooy ab tarbiya moo tax ren ñu tànn Cheikh Issa Dienne ak tarbiya tarbiya mooy fekk ab xol nga laabal ko tàbbal ci ngëm ak xam-xam def ci charia ak xaqiqa ragal yàlla gu mat sëkk. waaye tarbiya gi nga xam ni moom la Cheikh Issa daan tarbiya nga xam ne li Sëñ Tuubaa defoon ci moom ndax Sëñ Tuubaa ku universel la ni mu defee mooy ku nekk daa def ci yow li mu def ci yow nga nekk làmp buy tàkk waaye dalaa yebal ci yeneen gox yu faccantikoo ci réew mi nga xam ni tey Sénégal bu yaatoo toll nii mu toll fu ne nga man faa jaar fekk fa mbirum Sëñ Tuubaa fekk fa tarbiya daara fekk fa juma loolu liggéeyu Sëñ Tuubaa la boo xam ni dafa am ci ñum ko def transféré ko ku nekk dem fa mu nekk nekk fa lampe boo xam ni ña la jege ñëpp dañuy gindikoo ci yow loolu nag mi ngi doon jaar maanaam lumière bu sell boobu di bàyyi ko ci yàlla fenn rek la doon mën a jaar mooy ci tarbiya ci tarbiya mag ñi moo tax fuñ mës a sanc daara rek la tuddoon dawuñ wax sax ab dëkk dawuñ wax sax ki waaye daara rek lañ daan wax ndax booba yitte ji moo nekkoon defar doomu aadama yi ndax jàng rek defarul doomu aadama waaye doomu aadama li koy defar dëgg dëgg nag mooy tarbiya moo tax Cheikh Issa euh, ak tarbiyaam euh, boo xoolee ci ñi nga xam ne dañoo jaar ci loxoom da ngay xam ni dëgg dëgg day mel ni kum tarbiya Sëñ Tuubaa la tarbiya ndax loolu am na feeñ na ci boo gisee ku mel ni Cheikh Mamadou Lamine Bara jenn nga xam ni bi ko sëriñ bi defalee ñeenti ngërëm yooyu ba noppi garantir ku ngërëm yi ni ko doo tàqalikoo ñoom ba na daf ko daf jaa tegal ni ko ko gërëm warlul naa la koo gërëm mel na ni maa ko gërëm kon ndeketi tarbiya bala moo mat daa fekk na ngërëm li daa ñëw fii ak ngërëm li ñëwagul rek tarbiya gi matagul. moom moo tarbiyu sëñ Tuubaa ba am jigéen ba ba ba am ngërëmul sëñ Tuubaa kon nga naan moo moom moo tarbiyu eh, eh, sëñ Tuubaa am ngërëmul sëñ Tuubaa noonu la eh, tarbiya ñeneen tam bañ am ngërëmam ba tax ñu ràññi ko yoonu murit ndax lu ñuy def ci yoonu murit maanaam ca ña gën a ràññi la ñuy doon foo dem itam foo fekk murit yi mën nañ ne. maanaam euh, foo gisee daanaka ñaar wala ñett da fa gis koo xam ne bii njaboot maam Cheikh Issa la bokk. yar nit ki ba mu mën a noor bakkanam ak i cëram moom jëmmam ak yëg-yëgam. Cheikh Issa donn mbuutum tarbiya ci Serigne Touba. Serigne bi yóbbu ko fu sore lool fu kawe. foofu kenn jotewu fa ku du Serigne Touba def ci moom yitte ju kawe daana wax naan duma sëriñub gone sëriñub boroom yitte ju kawe la mu daa yar taalibe ci jikko yu rafet ak yitte ju kawe euh, boo xoolee nag njenne seenub tarbiya sëriñ bi Cheikh yàlla da ko defal tawféex moom ñaari tànk la doon doxee mooy tànku charia ak tànku xaqiqa ñaar yooyu nag benn benn sooxewu ci woon sariya bi daa matoon sëkk waaye xaqiqa bi ñëwit mat sëkk moo tax dëkk bu mës a sanc tarbiya ga daari tarbiya ja moo ci moo ci jiitu waaye dañ ci daan boole njàngum alxuraan waaye naka noonu fa lay bàyyi espace boo xam ni xala kulli xaal jumaa lañ fa waajal wala jàkka pour barab boo xam ni nit ñi dañ fay jaamoo suñ borom subhanahu wa taala moo tax dëkkam yi foo ci dem di nga fa fekk ponkalum pénc waaye loolu eh, yar la boo xam ne rek ci sëñ tubaa la jógee ndax mboolem ñi sëñ tubaa koo ci dem Euh, ci dëkkam di nga fa fekk penc mu mag moo xam ne jumaa rek lañ ko fa bàyyil euh, naka noonu ñu dolli ci daara yi tey jii nag euh, liggéey boobu yokku na ba yaatu ndax ku xool Cheikh Issa lim sanc ñu di ko lim di ko lim ba wax ni lu mat juróom fukki dëkk ak ñett yoo xam ne ci loxoom lañ ko sance loolu ku ne xam na ni la ko waraloon lépp du woon wut alal du woon kii waaye la ko taxoon a jóg rek mooy defar doomu aadama yi ci ay barab yu wuute ndax bu ko neexoon bi bu doon ay barab yu neex rek la doon wut kon day dem dakaar wala Thiès wala Ndar ci jamono yooyee ndax mënoon na faa am la fa nit ñi di am waaye mu dem fu sori foo xam ni sax taamu wuñ su mu neex moo tax barab yu bari da ngay gis day tàng wala day kii climat ba sax du am géej du am kii waaye ñoom li ñuy defar fu ñu ko mën a defaree rek léeg yàlla moo leen di yabal barab ba nga xam ne rek fa la leer googa nekk ngir taalibe yi man ko faa jëli tarbiya googu nag mu ko daan def ci njàngale ci yar nit ñi ci lislaam waaye dawul yam ci loolu ci jàngal leen nu ñuy doxalee ci wàllu liggéey ba bu ëllëgee fuñ mën a dem fuñ mën a dem danañ mën a taxawu seen bopp dinañ mën a yor ay jikko yoo xam ne ñëpp dinañ leen ci ràññee te loolu yaakaar naa mooy rek li yàlla tagge woon yonente bi euh, wa innaka la ala xuluqin asim mu sanc daara yu bari naanaake ay daara la fa am wuti mbampana jàll ngal ak xabbaan daaru jenn daaru salaam daaru paam mburoox ak mbay jiñaax moo lay won ak fitam akum njàmbaaram gàpp sel lay jiit makkaaki turengam fépp la toj ba mu mel ni njënn lagan fii fépp mbooloo la fa daan tarbiya ñii mu defar leen ba muy defare ñee mu seexal leen tofal leen mbooloo ñuy wéy di defare ñëw ngeen ci barabu Cheikh Ahmadou Dame Sourang muy barab bi nga xam ni moom la ko sëy Issa Diène sampalan nga xam ne fi lañ gàddaaye woon demoon Daaru Sourang ginnaaw bi ñu dellu siwaat fii sancaat ko fi Cheikh Ahmadou Sourang nag ci la sëñ moom la sëñ Issa defar ba muy defaree mu jëm jëmm joo xam si ker ba muy gàddaay di fekki seex Issa Diène waajuram wu jigéen ku ñuy wax soxna aram naar dafa jooy loolu sama waajur sëñ Cheikh Sourang laa ko déggee mu ni defoon naa du ma du kenn ab jàmm ba sama doom ji nar naa jàmm ji doom yi jàmbur nañ ne mu jaaree tund Kajoor ceddo yi nga xam ne bokk Cheikh Mate Sourang ne dañ ko doon wax naa ko lu ne mën ko moom des Cheikh bu sant Sourang sëñ Cheikh Sourang nee na sëñ Bara Diène nee na ko keroog la la dégg ci sëñ Issa mu wax lu lu nuru baatu arab nee da ko dafa geestu jàkkaarloog mboor mi ne mat suróog mi de fa soo yokkun xalsat na nekk loolu ci sëriñ Cheikh Sourang ci laa ko nangoo waaye na leen seeriñ daal ñëw ngeen ci barab boo xam ni barabu sëñ Issa jenn la ndax Cheikh Issa rëddal Cheikh Mat Sourang sëñ Cheikhouna Mbacké itam nett na ma mu sëñ Blaat mos naa ko nuyu mu wax ma ni ma sëñ Issa mos naa ànd ak Cheikh Ahmad Dam Sourang ak fere yi ne bi ñëwee bay siyaar sëñ tuwa bi ñëwee ba jub ko Cheikh Modou Sourou ak ñi mu àndalan dañoo sukk ci ginnaaw nee na ku tedd ki siggi ni leen ñëw leen nuyoo nee sëñ Issa rek lañ bay mu dem nuyoo ñu sukk fi ñu sukk nee sëñ yox leen ba mu ñett yoon donc ne ko Issa mu ne ko mbàkk mu ne ko nee fere yi ne ñëw nuyoo nee sëñ yaa ne gees ni mat suram ñëw siyaar ñëw daal di raam nee bi ñu raam bi daa jël gi daal ci kanam ne ko ndax mos sama kaddu gi li muy sa kaddu gi rek yi déglu bu ñëpp mel ni ñoom su ma tëddee dinaa nelaw. waaw fii moom sëñ Issa Liku de sëñ Moussa Liku de mooy sëñ Issa ndax bi mu jógee euh, Lagane ba sëñ Issa euh, wax ni ko nanga dem ba passé pël ga ci neen ma wax wax naa defe naa ni fii ci neen ma waxee ñetti ngat rek moo am ci àll borno Lagane bi muy ngatu sëñ daam ngatu sëñ sëñ sëñ Moussa Ka ngatu sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Ngañ Tenne ngatu sëñ moo Touré ci des ñëpp ci ngat sëñ Issa waaye ñetti ngat yi moom. ñoom ñi moom sëñ Saliou jox ndigal ñu ngatal seen bopp ñetti nga di ñoo am ci bornob lagam bi waaw ah, wax na ni bi sëñ saa nekkee fii nag ban daa bay àllar bay sëñ saa ah, mag ñoo ñu limal ñëpp ñu ci bari mu Moussa moo leen daa toggal añ fii ci ci ci ci ndax booba àllarba ji mi ngi fii ci xur sëñ Eblati bii buñ jëmee Daaru Rahmaan wax na ni foofu fa leen daa daje ah, benn bis wax na ni sëñ Issa mos mos nañ fi ba ci ak sëñ Issa ñëw di leen wàcce si di seet di seet daa daa tool bi bi ñu waxee ba sëñ Issa ñëw seet tool ba toog ci garab gi mbooloo mépp ñun li sëñ Issa ñëw na booba euh, dañuy taal ni sëñ Issa ñëw na ñun ñëpp ñëpp kenn ku ne la nga doon def nga bàyyi ko ñu wuy sëñ Issa booba ci ci ci ci ci garab gi mu toog wax na ne bi mu doxee ba ñëpp toog ma ba sëñ Moussa daa ndekku ca ña wekkan ca wa ca kanam di ñëw loolu defe naa ni Serigne Serigne Cheikh Diop Bengue moom wax na ni booba mi ngi fa maamam moo ko wax ni booba mi ngi toog mu ni booba day bi sëñ Moussa ba ci kanam ba sëñ ba mbooloo mi ñun ndax na ñëpp ñëw na mu ne ko ah, ñu bari ñu mu ni waaye kenn yi ñëw ku mu doon ñu ko kële sëñ Moussa la mu ne ah ndax am de jëmm ji tax fu ndax am jëmm ji day moo tax fu ma fekkee ci ker ma mel ni ciw naaj laa toog ndax jëmm ji tànk bu mu yëkkati kënu tàkk ca aras loolu moom wax na ne sëñ Moussa Cheikh Issa seereel la ko sëñ Moussa ci biir àllarba yi àllarba yi àllarba yi lagan ji xabaan xabaan moom euh, teen bi fi tubaab bi defoon moo tax te woon ndox te booba ndox jafe moo tax mooy xabaan teen baa nga kër njoogu jamono ci njaareem bàyyi daam moo wax ne mag ñëpp sëñ bi ni leen yéen ñëpp na ngeen dem penkub na ngeen dem xabaan liggéey fa ndax li ñu liggéeyee jumaay njaareem suufas xabaan si la ko liggéeyee loolu moo tax foo suufas xabaan am na gor am na dëkk yooyu ba ñu ko goroy léegi téeméer ak fukk ak juróom wala téeméer ak fukk ak ñett ci la tool te ba tey dara mus ci yóbboo te boo béyee am dara te suufas penku se lu mu baax baax foo béy ñetteel ñeenteel ba di nga gor feneen ba doo fa am tus bàyyi daam ne ma nag bàyyi daam ne nag suuf suuf si dafa barkeel ndax ci la ñuy liggéey jumaa njaareem li ko liggéey fii lañ ko liggéey li ko booba ñu liggéey jumaa njaareem lañ fa daan joxe seex yi la ñuy bari bari sëñ Isaa Cappoon lu moo joxe moo ca mënoon moo ko taxan a jóg ndax déggoo ne ma wax ca gannaaw Sëriñ Tuubaa dama dégg ni xabaan am nangu nañu ëreen ma bëgg ñaan fi sëriñ ñaan ci ñu may ma fii ma béyal sëriñ bi bala ñoo ubbi jumaay njarem mu ñëw fii ñu may ko lii loolu moom la moom la waxal liggéeyal sëriñ Touba taxal mu dikk fi lu mu fi liggéey lépp lu mu bari bari ak lu mu néew néew sëriñ Touba la ko yót ak yóbbu njareem ba nga xam ne bii def na ko ba ba ba mu am ay at sëriñ Touba woo Seex Isaa ni ko issa mu ni ko Mbàkke mu ni ko dama bëgg nga dem lagan ma fekk la faak la gën Cheikh Issa fii moo ko sanc dafa dem njaareem daje faak sëñ Bandoumbe 1901 moom lañu gor xabbaan 1903 maam Thierno Birahim ñëw fii Touba Dieng Ablaye Diaw sëñ Modou Diaw paxa fii Cheikh Issa ñëw fii daal di wax ni man de ji ma gis sëñ Bandoumbe indi ko jëlee ko xabbaan dinaa dem foofa liggéey fa indil sëriñ Touba addee sëñ ma ndumel la fekk sëñ Touba ci njaareem ñu di ko ko jox mu xool ko gis ko mu ne day ñëw fii liggéey fi ngir yóbbu yóbbu sëñ si Issa samp na fii ay mbër gindi na fii itam lu bari ba mu fi jógee sëñ Baara Jéen taxawaayam ba sëñ Issa taxawoon loola taxawee fii ak njabootu sëñ Baara yëpp. doy na sëkk seere ba ñuy ubbi jumaay njaareem ñetti téeméer ak fanweer ci dong tarbiya la àndaloon. bañ Cheikh Issa indi na téeméeri dongo ak fanweeri dongo yooyu la ak ñaari téeméeri dongo yu ko moritu ba wàcc muy ñetti téeméeri dongo ak fanweer yu mu yoral boppam yoo xay moo leen yaral boppam te bokkul ak ñi nekkoon ci jumaa ji di fi liggéey nga xam ne bisab keroog benn bis la. bi Serigne Touba génnee ba agsi ci buntu bunt bi daal di woo sëñ Issa Diène Cheikh Issa mu ne ku ko am ay dàll yu yees waaw. Cheikh Issa daal di woote laaj mbooloo mi ko am daal lu yees ndekete taalibu Cheikh Issa Diène bu tudd Ndongo Fall moom bi muy ñëw jaar na kër Modèle Porom jënd fa ay dàll yu bees fekk ay marakis bii mu def ko ci poosam bii bii mu def ko ci poos bi door a laxasaayu takk diggam bi sëñ Issa laajee dàll yooyu rek Ndongo Fall moo daw ñëw sukk fi Cheikh Issa ne ko ah, man di jaaroon naa foofu ba jënd ay dàll sëñ Tuubaa ko indi mu daal di indi dàll yi Cheikh Issa daal di yëg di indi marakis wi daal di dugal loxoom ba yëkkati marakis wi ba kii daal di teg ci tànk suuf tànkub sëñ tubaa téyee dàll bi sëñ tubaa dugal ab tànk mu ndey joor Cheikh Issa jëlaat loxoom dugal ci dàll bi yëkkati moom kii mu daal di tegaat suuf sëñ sëñ téyee sëñ tubaa dugal tànk bu ci am mooñam sëñ tubaa daal ne sëñ Issa eh, ma soloon jox ko ki moomoon dàll yi ndongo li moomoon dàll mu daal di jël dàll dàll jox ko ndongo faal xoolal ndongo faal moom li mu am ci barkeb Cheikh Issa Diène keroog ak moom lu ko lu ko wax jëndal ay dàll indaale ci ubbiteg jumaa waaye lépp Cheikh Issa rek ak boroom noonu la wel moo tax ndongo baal moomu keroog bi mu faatoo bañ sangu ko ba noppi ba sàngaay des ci dañ koo solal daal ci tànkam ba noppi door koo sàng googu xéewal mu am ko ci barkeb Cheikh Issa Diène kooku kenn la kon Cheikh Issa sëñ Touba noonu la jullee keroog ubbi jumaa ji moo tax ñu ne sëñ bi dox doxitu rammotoom moom mu la mag ñi daan wax doxiinu rammotu dal di dugg ci watab Serigne Issa na booba ku ñuy wax sëñ bay biir mooy safoor ba waaw yooyu jamono sëriñ bi daal di wàcc dugg ci biir jumaa ji jiite julli korite muy 1924. ni ma waxee fekk ne Cheikh Issa wax na ñetti téeméeri taalibe yi ak fanweer ne leen bu subaa bu kenn ci yéen julli indiwu leen fi ngir julli julli taxut ma indi leen fi jëmmi sëñ tubaa ji rek a tax ma indi leen bu dara agsi ci moom daa bëgg sëñ tubaa ba sey ci muy ay góor yàlla yu mag yu ñu ràññee ñu mën cee lëm ñan nag ci ñoom sëriñ daaru ngañ tàndine sëriñ moox Touré sëriñ ibrahima mbeng sëriñ Ahmadou Dame Sourang sëriñ Mor Mati Wadd sëriñ Aliwut Sey sëriñ Moussa Ka Thialé sëriñ Moussa Ka Madina sëriñ Fadilou Guèye sëriñ Aliwun Mbacke Gosaas sëriñ Abdoulatir Diop sëriñ Mor Jann Daaru Paam sëriñ Abdourahman Diagne sëriñ Daouda Diagne sëriñ Jabel Diagne sëriñ Touba Mbaye sëriñ Baara Faal sëriñ Masek Sey ak mbooloo mu takku moom mënuñu leen a lim fii ñooñu ñëpp Cheikh Issa def ci ñoom mbuutub tarbiya fonk lool tarbiya te nawloo leen daawul tugal njabootam lu dul ci ku ñu tarbiya walla borom alquraan mbaa ku leeru tarbiya nekk ci yow njabootam ju jigéen ji jox na leen na mu tarbiyaal boppam ngir ñoŋal ab liggéeyam jox na leen borom alquraan ya ngir sàkku barke jox na leen njabootu cheikhul xadiim ak njabootu maam cheikh ibrahima faal ak cheikh si musuta tàbbal njabootam fenn lu du sàkku ngërëm rekk a tax ak xeeñtu tarbiyam looloo ko may cër yu mag yi mu am ci yoon wi tey jii jot na sëkk ñu wane liggéeyub maam cheikh isaa jenn aku doxinam ngir mën cee sukkandiku ba gën a mën a yar njaboot gi gën leen a mën a puus jëme leen sóob leen ci yoonu tarbiya ngir ñu am ngërëm di fal di folli te bu wér yàlla na ni suñu borom fayal maam Cheikh Issa Dienne te taas ñu ci barkeem xamle maam Cheikh Issa jot na jëfam ya rëy na liggéeyam ba yaana ndamam ya làndi na ruddan wa rahmatan min allahi albadiya jëf maam Cheikh Issa Dienne ñaan ci barkeb Cheikh Issa mm, liggéey bii nga xam ne yéen a ngi koy taxawee mu kàttanal leen dimbali leen ngeen dem ba eh, lépp li nga xam ne moom ngeen yéene ci liggéey ko ci kër Cheikh Issa mu mottali ko ni ngeen ko bëggee. yéen yàlla na leen yàlla fay yéen a ngeen di jàppale sëriñ Touba. loo bëgg gëm ko nag faaw nga jariñu ñun dañoo gëm sëriñ Touba bëgg ko gëm Cheikh Issa bëgg ko faaw na du ci jariñu. waaw ku jàpp ci moom daal bay boo sa xel daal bu baax ku jàpp ci moom. Mm-hmm. nga taw féex yoo xamante ni wutaloo ko sa bopp dañ la ko isaa jën ak balla faali jëng ñii ngeen boole bis nag dañoo bokk ci janti sëñ tubaa sëñ tubaa moo bind ne lii jaar bi sumu si wal bu duuri mobil masa bii ba duuri kon su ngeen yëkkatee bésu tey jii di bésu Cheikh Issa ngeen tudde ko sëñ Balla Faali Jeng te ñoom liñ bokk bari lool waaye lii leen ci gënal mooy Serigne Touba miñ bokk ma jooy leen dogal ka njëkka laxas ba Tuubaa di topp ndigal ko faale tarbiya ak defar bu doon aw raaya ñu ni moo ko ràngoo bu doon aw waarit ñu ni moo ko sasoo bay ko bayin wu sell te rafet ba sëriñ bi tab jaar fa moom la daan yabal taalibe yi defar taqoo la laaj te amatuma jot dem leen ca bàll faali defar naa ko ba muy defare la daa wax jëmm ju sell jooju sàmm te bare pasteef doon wëllëre ci Cheikh Issa Diène moom la kuréel gii di jamhiyatu tawdihi wa nasri li injaazaati maam Cheikh Issa Diène di kuréel gi saytu di yaxal ak a ñoŋal jeexitalu maam Cheikh Issa Diène moom lañu fas yéene wan ko àdduna muy ab royuwaay ci nataal ci pas-pas ak ci tarbiya tur wa moo di cheikh Mouhamadul Habiballahi ñu gën ko xam ci cheikh Balla Faali Jeng fenn jamono atum 1856 yamoo ak junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci gàddaay gi feeñ ci askan wu baax wu siiw lool ci xam-xam ak diine ak ngor askan wu jàpp lool ci alquraanul karim ak sunna feeñ ca dëkk bu ñuy wax ndogal ngembe diggante kajoor ak bawol nekkoon murit nekkoon ku bëgg sëñ Tuubaa Xaadimul Mustafaa ko dara way juram wu góor mooy sëriñ ma Masàmba Soxna Jang moom sëriñ Balla Faali Mbéri way juram wu jigéen it soxna Xujja Aram Silla moom sëriñ Majama Silla ma sañ ci ñaxal ca Mbaakol sëriñ Balla Faali Jang donn ngor ak njàmbaar ak diine way juram la sëriñ Musaa Ka di way naan ko manaan ma dollu balla ma fab balaka doom xare këgam ba dàq dammel di yaale ak càllalaam loo ci topp mu dem ba fuuta tooro am na sax ñu naan waa daymaani la ca gànnaar ku njëkk ki di sëriñ Masamba Soxna Jeng di waay juróom mu gën àdduna ca dëkk bu ñuy wax njompi caatu 1274 ci gàddaay gi tombeek ci miladiya ku ñu wax suna xuja aram silla moo nekkoon waajuram mu jigéen nekkoon soxna su tedd nekkoon ku baax nekkoon ku nangu jànge alquran te sëriñ ahmadu silla te tey bëggey mokkal ko mokkalin wu rafet bind ko jàng xam-xam ba xam lépp loolu doomi soxna war na ko xam dellu ca way juram sëriñ masamba soxna jàng mu jóg sàkku ji xam-xam ca bam ko matee dal waajuram jébbal ko ku ñuy wax sëriñ ah, tayba sill ca tayba xay moo ko jàng alxuraanu karim ba mu mokkal ko bind kaamil ci loxoom bu tedd boobu kaamil boobu doom ji fi nekk tey def xalifaam nee na ci la doon jàng alxuraanu karim di si mutura jëng bala faali bi mu nuppee mu jàng mboolem matière islamique yépp ci tënk ba géeju ci mboolem fuyunu islam yi ñu jàng yépp atum ca daaru salaam mu jox boppam sëriñ Touba sëriñ bi nangu ko tarbiyaam ci ñetti at rekk la toll suñu borom mayoon ko ci lool ci wàllu tarbiya taxoon sëriñ bi daa yabal nit ñi fa moom keroog la ko bamba jës bu mu dem ci bëtin mu ne aslamtu nafsi lil muali moo ko woo ci baatin mu fekk ko daaru salaam foofee la jox jokkoo ci borom Touba. nekk fa di fa liggéey di fa liggéey ba sëriñ bi ñëw Touba sanc Touba nekk ak moom Touba ba sëriñ bi waaj a dem ci liggéey bi door koo wàcce ndax wax nañ ne keroog bi mu koy wàcce daf ko fekk foofu ñu def jumaa ji te sëriñ bi defoon fi këram moom la doon bay illeer gopp ba mu ko doon bayee moom la wujjee sëriñ bi sëriñ bi ñaanal ko ne ko Balla mën ngaa dellu te dëkk ba te woote la mu jëlee ci sëriñ Touba ak la sëriñ Touba wax ci moom ndax boo ko seetloo loolu mu wax ni tërbiya naa ko defar naa ko moom sëriñ Saliou Mbacké bu ko mosaan nettali bu noppee ci nettali bi dafay wax ni donte mag ñi ñëpp am nañ ko sëriñ Balla Fall yi moo am tawféexi sëriñ Touba euh, euh, tudd ko. atum wasasin la del si ndogal di leen waar ña ngay mànkoo te naa bu ko kenn. mu sañ ci dëkk bu ñuy wax Daaru Jeng fala des di yar taalibe yi di leen tarbiya di leen yóbbu ci suñu boroom. dëkk bi di tax sëriñ bi sos ko walla di tax mu sañci ko loolu moom dañuy xam ne dañ koy delloowaat ci. cheikhul xadim mboolem ñi mu yar ñëpp bi mu leen defaree bañ defaru ku ci nekk ba nga delloo dangaa dem matt ga giliñ ba nga jëlee woon foofa nga dem taali bi mu ñëwee fii tam wax nañ ne njëkkut a sanc daaru gii fii ñu fekk dañ daaru fii njëkkutoon a nekk fii ndax boobu sax dañuy wax ne bi mu delloo daa delluwaat ci mbokkam ñu xatal ko foofa ndax loolu moom yàgg naa am ku xam histoire xam ne loolu yàgg naa am ci gaa yu baax yi ginnaaw bi nag la dem la wax ne daaru gu njëkk ga mu ngi woon fee daara ji nga xam ne benn la ci daaraam yi ñu koy wax daaray gent bu nekk fii ci penk bi dañu foofu la daaru njëkk a nekk nekk na fa diir ñu ne ginnaaw bi daan na def yoor yoor gu jot am na daqaar gu nekkoon côté bii guñ daan wax daqaaru gol nee nañ daan na fa toog ab diir léeg mu ñëw ci daqaar gu mag gi nga xam ne moo nekk fee ci pénc ma di fa di xam naa di xool barab beek yooyu ñoom mag ñi ni daan listixaare barab bu yor yor bu tàngee mu delluwaat dañ daan ko def ba ab jamono nag ci la mujj nag ñëw sanc si dëkk bi ñi koy wax ne bu ñu juumut am na ñuy wax ne 1902 waaye booba dañuy wax ne tam fekk na 1902 googu bi mu koy sanc dem na ci sëriñ bi nag ndax booba am na yu xewoon xew xew xewoon ci tund wi metti woon lool Daaru Jëng mu doon daanaka 7 kilomètres digganteem ak njompi kër baayam euh, foofee la toog sëriñ bi na ko nag ma faxaar ci gàttal dëkk bu bu bu mu sancal boppam la te wetoon fa lool ndax toll nay jamono bu ma saa takkum néeg sax bu ko bëggee yëkkati day kar am njëgg mu fa jaar pour ñu jàppale ko waaye toog na fa itam ba la sëriñ bi waxoon ca maayom ba fekkaat ko fa ndax bi nee na ba muy door a dem Gabon amoon na fu tummunanke yi néeg bu néew bu ñu suul bay door a dëdd waaye toog na fa ba lépp lu waay di wax balaa àgg da nga ko tudd foog nga ne yàlla y Gabon ci sëñ Balla itam ba muy door a sanc daaru noonu la fa wéete woon waaye toogoon na fa ba képp ku maye wala ngay sa sam samp lu mën a doon rek boo ko tuddul wala ñëwoo ci moom du sotti ñaan gi nga xam ne sëñ Tuubaa joxoon na ko mën nañ ne dëkk bii def na ko Dakar gii wax nañ ne ñeenti xable yëpp def nañ ko fi guy gu mag gi wax nañ ne def na ko fa ndax sëñ Modou Dieng mi xam ne moo dem bu yogul moo moo wax ne ma guy gii de ñaan gi sëñ Tuubaa joxoon sëñ Balla Fayel def na ko bi fi ñëwee itam ndigal sëñ Tuubaa la fi indaale mooy yar ak jàngale ak tarbiya bi mu ñëwee sanc dëkk bi dafa sañc daara kon kooku xam nga ne jàng ak liggéey moom nañ ko boolee ci itam dafa waxal ne kuñ jàngal ba nga am xam-xam am doole mu yóbbul ci daara yu tërbi yi nga liggéeyal sëñ tuba bokk na ci li ma seex Mamadou Moustapha wax moom seex Balla Fally ci li mujj ci màggalu sëñ Balla Fally ca Daaru ci waxtu diggante timis ak gee ni ma dëkk bii sunoor noor mosaa jot mu ni doomi sëñ Tuubaa yi ku ci xëy siwul gont si ci mu ni seex siit noonu lañ daa def loolu kon day wone rek fu ñu tegoon sëriñ Balla waaye teggee itam weesut rek la mu jëlee ci sëriñ tubaa ak la Serigne Touba wax ci moom. kër gi ñu nekk itam ñu wax ne moo doon këram fii la daan nekk nee nañu teewul nag ginnaaw daan ni ñuy wax di dem ak a dikk ba ci ginnaaw bi nga xamee ne ci la ko Serigne bi joxee ndigal. ci la waxoon sëñ Balla nag def ko jëwrinu mboolem seex yi newoon ci Serigne Touba ci la ko daggaloon kër googu ci njaareem mu féete foofa nag. xam ne moo taxoon ñu bari jëwriñ lañ ko daan wax looloon lañ wax ne moo ko jëlee woon daaru mu dem njaareem waaye dëkk bi daal nañu xam ne dëkk bi suñ tubaa ndigal suñ tubaa la sëñ Abdou Dieng mi xam ne moo ko gën a jëkk jëkk ne xalifa yi daanaa wax naan daaru waxi mag la te waxi mag du deñ gis nga boole li ngeen fi gis courant ak luy nuroo ko yoon ndox mi politique indi ko fi de baaxu sëñ tubaa liggéey sëñ Balla Fali ak i doomam ñoo ko fi indi ni sëñ tubaa doon doon ko tërbiya noonu la tërbiya ñi nga xam ne ñoom la àndaloon noonu ko sëñ Moussa Ka waxee turee ki colom wa jompi gu mag wadaaru fu nekk la samp yi daara min rijaali noonu la doon def bi mu demee ba suuf sa yaatu ci moom it mu installé fa suuf sa nga xam ne am na ko ca ndogal fi mu toll nii lu mu néew néew juróom-ñaari daara nga ci biir suuf soosu nga xam ne lépp ci ne lu fa ñore bis biñ ko bojjee ba ci ren jee ci mujj ci kilifteefu Cheikh Mamadou Mourtada kër sëñ Tuubaa lay fanaani man mii sama waajur tarbiya woon na ko moom sëñ Balla Fally yaakaar naa bi mu fi bàyyi ko di 40 ci ñi mu fi bàyyi woon ci la bokkoon moom sëñ Balla Ndiaye sëñ bi bu yàlla dogalee mu ñëw sof ca liggéey booba jàng ak liggéey ak tarbiya dëkk bii bam ko sosee ba tey lépp lu fi dong ab tarbiya masa bay sëñ Tuubaa lañ ko te dëkk bi ëpp na téeméeri at waaye fii wàllu gàtt màggal wàllu mbay mi lépp sëñ Tuubaa lañ ko bareen jii téeméeri bëri ko ak juróom-benn fukk ak nanga man peese naa ko fii ci loo dong yi ñoo ko bay ñut ko sëñ sëñ Tuubaa ku xiif mu yafal ku rafle mu mu lebal ku ñaan si mu may la maali lu war mu dogal ku ñëw mu defar nga am kër ku sew mu rëyal ku lottu ne balla faali ku mas di labat fa njompi gu mag balaa jël mu may la alal ku weddi nga laaj rijaali di fat miskin ya boole jirim ya nàmpal di may daif ya jooy leen balla faali li leen fas di leen kër fa njurbel ku weddi na laaj sëriñ jeng balla faali xabibullahi lii la saxal ci duniya ci réew yi ndogal ba réew ma ne nan ko faale mu tarxiya gor ya tarbiya jaam ña dikkoon yafal way loof loofoon fii misaali melokaan wi la sëriñ Balla amoon yaqulu habdullahi wa huwa ahmadu xadiimu man sumaatuhu muhammadu taqoo woon lool ak xasida yi rawatina jaaribatu marahib jazbul qulub wa kaana xaqan sëriñ Balla moomu nag dafa am koo xam ni dañoo bokkoon ndey ak baay ñu koy wax sëñ Mor Dieng xam naa sax gaa yu baax yi ñëw nañ fii ci andi ko ci wàllu euh, euh, wakaana aqan bi waaye moom la ko joxoon ni ko boo demee neel Cheikh Balla Fall yi na ko donga yi def ngànnaay ak yeneen i wax yoo xam ni yooyu daa jëm si ci kër gi. bu dee nag euh, jaalibatul maraaxib mi ngi ko joxoon ku ñuy wax maam Ibra 1904 maam Ibra maam Ibra ñu gën koo xam ci maam Ibra euh, Njende ñooñu nag ndawi Serigne Balla la ñoo xam ni bu sëriñ Balla daa yónnee ñoom dañuy bokk ci euh, ñi nga xam ni ñooy jiite ñi ñu àndal bu ñu demee ñooy wax ak ku baax ki ku baax ki ñoom lay waxal. Serigne Balla Fall amoon taw tawféex lool. ci bis bii di suñu bis di màggaluk tuuba fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar sababu xaybati ak juróom weeru safar ki woote woon màggal gi fii tuuba ba ñëpp di fëx jàmbaari maam Cheikh borom moom la Serigne Touba digaloon sant ko it mu yëgal ko fere yi ni ko la waxal ñépp ni koo xam ni sama mbég sa mbég la sama bis bi na ma ci santale suñu boroom te lépp lu waaye am diggante ñaari keef yi muy ganaar ak giléem bu mu ci xeeb bu mu ci yem balla na nga leen wax ni képp koo xamante ni ànd naag man sama bis bi lépp lu ma jëlee ci sama tukki bi dara du la ci ump màggalu Tuubaa bi nga xamante ni moom la sëñ Balla moom la ko sëñ Tuubaa dég digaloon joxoon ko ndigal na ko dégalal frais yi na leen nañ may sant yàlla yàlla ci bis bi ba nit ñu tudde woon ko cantu Balla Fally mës a lu mës a am ci bis boobu la koy def. ba nëgëli si ñun ci loolu lañ ne. ku ne xam ne bisu sant bii nga xam ne ci la sëñ Touba wax ne nañ ma sant le yàlla muy màggal ak Touba sëñ Balla am na ci cër. moom la sëñ Touba ne ko wëral nit mboolem taalibe yëgal leen ko. bu fekkee ci wàllug màggal gi li ma ciy indi moom dama koy tàmbalee ci sëriñ mu dew faxa mi nga xam ni moom dégg naa ci taarix ñu wax ni daana wax ni ku dégg màggal moo la ko gën a dégg ndax dégg na ko ñetti yoon moom euh, Serigne Touba yónni na ko ci Seex Balla euh, ni ko boo demee nee ko koo xam ni sa mbég euh, sa mbég la naan ak man santle ma yàlla ci fu bis bi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar diggante ñaari keef yi bu ci waay xeeb lu man bu ci waay naw lu man li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem boo demee nee ko képp koo xam ne ànd na ak man sant ma ci yàlla bu ëllëgee li ma jëlee ci sama tukki bi du la umpu bu ci yokk baat waaye bu ci wàññi baat euh, dégg naa ca taarix ñu ni sëñ mujj doo faxa màggalam gu mujj day rey ba mu jàgg mu ne xar mii maa ko reyal balla faali mi ma jot ndigal li tawfeex gu ni mel moom la maam Cheikh Issa Dienne moom it am ci màggaluk tuubaa ba ko Cheikh Mouhamadou Fadel di woote waat ci Touba moom la ci diisool ni ko damay barkeelu ci ni Serigne tuubaa daan def daawul dugg ci dara te diw soowu ci ak yow cheikh isaani cheikh mahamadul fadil bis bii de dina ñëw te ñépp ak fépp dina ñëw loolu yi yaakaar naa tey jii màggalug tuuba daj na àdduna sëriñ Balla Faly Dieng nekkoon lool wala réew maam Cheikh Issa Dieng taxawu ko lool ci liggéeyu jumaa ji ràññeeku ci lool moo yoroon sax carnet ba nga xamante ni fa la taalibe yi daan bindu seen liggéey euh, ba 1912 la fi ñëw 1913 mu ñëw fii ci kër gu mag. daal di yónnee wàllu sëñ Balla mu ñëw mu dëkk mu dël ko fii ne ko ñëwal ci sama wet ndax dama lay soxla. kàddu jullikaay gii ab jarbaatama ko natt muy sëñ ma jëmb si la bii ko sëñ Tuubaa nattuloo kàddu jullikaay moom moom moom sëñ ma jëmb si la sëñ Balla Faali mii nijaayam la ko sengloo. bokk na ci jeexiti sëñ Balla yoo xam ne sëñ Tuubaa ko santoon mu liggéey ko. kon su ngeen yëkkatee bis bi ren. tudde ko sëñ Balla Fally Dieng loolu jumaa jii rek doy na ci seede ndax moom sëñ Balla moo yoroon carnet bi nga xam ne pour taalibe te war a def ci jumaa ji dara rek ci moom nga koy jaarale. sëñ Moussa Ka euh, nee na. seex moo dundumbe seex Issa jenn seex Issa jenn moo ko jëwrinu moo di Sadeex wa seex moo dundumbe dolli ca Balla Fally nga gis ni kon ñoom sëriñ bi da leen a boole woon ñu ànd ab liggéey. diggante sëñ Balla ak sëñ Issa. Euh, ku ne xam nga ne wax naa la ne li gën a ñor sëñ bi mooy jumaa ji bi ko suñu borom digalee mu defar jumaa ji daf koo jox jëwriñ yi muy kan sëñ Issa mu jiite ko sëñ Mandumbe sëñ Balla Fally sëñ Mor Absolu sëñ euh, Issa moo doon maître d'œuvre bi nga xamante ne nii sama yaa daana wax naa ma sëñ Issa daana wax naan ma bu bu ma saan xëy bu ma saan wàcc du fanaanoo dara ci lu mu war a def suba ci jumaa ji waaye bu yeewoo li mu war a def lépp borom tuwi da koy solal ci bopp bi ba mu fees del moom nag àndoon nag sëñ Balla ci liggéey boobu sëñ Balla moo doon trésorier général maanaam luñ mës a laaj ci ci li nga xamante mooy euh, li ba jëm ci jumaa ji lépp sëñ sëñ sëñ sëñ Balla bu ko sëñ bu ko sëñ Mandumbe laajee ak sëñ Mor Absolo buñ noppee dañ koy ñëw jox ko sëñ Balla sëñ Balla bind ko ci këyit ku ci mës def dërëm bind na ko ci kayit ku ci bu ñu noppee jox ko sëñ moom ci modestie laa ko mën a wax ci maanaam dëddugum dëddu woon. bu ma saan joxe li muy bind nga xam ne am nañu wax naan bambara bi la daan bind am na doon wax naan lapto bi la daan bind waaye daawul bind turam ba sëñ bi nemmeeku tur woowu daan waaw tur wi ma ciy gis rek kum ñu ne ko kii de Balla Fallé koy def moo koy tudde boppam léeg mun a Camara léeg-léeg mu tudde boppam bambara mu tudde boppam mu daal di koy woo mu ñëw mu ne ko Abibulaay loolu mooy turu sëñ Balla bi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa jox sëñ Balla ne ko yaay tudd Abibulaay kon nga gis ne kon ñoom ñaar ñoo àndoon dugal seen loxo ci ndigalu borom Touba lim gënoon a fonk ñu ànd di ko jëfe ci jamono yu naqari jamono yu metti waaye masuñoo ne i masuñoo wonk masuñoo deltu ginnaaw waaw teen teen teen sëñ Balla Faali lañ ko daan wax moo ko gasoon teen bi ci pénj mi teen sëñ Balla Faali lañ koy wax sëñ Balla Faali gas teen boobu bu ngeen génnee léegi ci kàdd gi bu ngeen gisee fi jullikaay bi am na benn teen bu nekk foofu teen boobu itam moom la ko borom Tuubaa bënnuloo woon wax nañ na ndox mu bari muñ def ci jumaa ji si la daan jóge yi nga xam ne doxoon na diggante sëriñ Balla Fari ak lenn ci mag ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi yaroon man nañ cee tudd ku mel ni sëñ Modou sëñ ma Ndumbe moom kenn ku ne xamoon na digganteem ak sëriñ Balla bokk na ci ñooñu it sëriñ Daam Abdourahman Lo ni ko mbokk mi junje léegi moom itam xaritam la loon woon li wëllëreem bokkoon na ci it sëriñ Masamba Diop Sam moom itam wala réem la woon lool bokk na ci ñooñe it euh, sëriñ mut jigal moom ko ne xam na ko moom wax nañ ne gàtt bi mu njëkk a ray ci bi ko sëñ bi joxee ndigal ci màggal gi sax gàtt boobu am na ñu ne mut jigal la ko tuddi woon loolu mag ñi baree bari nag noonu la demee woon ak ñoom sëñ Moussa Kami moom kenn ku ne xam moom li mu def ci sëñ Balla Fally ci ay woy ak li mu ko wax moom kenn xamul nu mu toll waaye nag bu dee kii nga xam ne nag mooy sëriñ Xanisa moom seen wëllëre day mel ni moom manees na ne sax moo ci gënoon a dëgër ndax dañoo séq yu bëree bëri Cheikh Balla Fally Dieng mi ngi wàccub liggéey ci atum 1940 yàlla ñu ko yàlla fayal 1940 la wàcc ci néeg bii la wàcce néeg bi nag dafa am ay ay ay ay xawaarix ndax wax nañ ne sëñ Modou Moustapha fekk na ko fi ndax ci jamonoom la wàcc sax moom moom 40 la wàcc sëñ Modou Moustapha wàcc 45 waaye sëñ Modou saa ganasi na ko fi sëñ Fallou it ganasi na ko fi man mii itam ci sama xam-xam ak bi ma dëkkee li ma fi nekk parce que man ci kër gi laa gën a àdduna euh, sëñ fekk na fi ba tey sëñ Abdoulaat ñëw na fi budul benn du ñaar ba magasin bii ci suma ginnaaw moo ko fi tabaxlu ngir di ci def ab dund di ko séddale waa dëkk bi tabaxloo woon ko sëñ Abdou Abdou Ndaam Jeng taawu sëñ sëñ Bala Faali ku jooy seex Bamba jooy seex Ibra Faali na sot xalimaam te jooy seex Balla Faali Cheikh Balla Fally moomu nag barabam moo nekk fii nu ne euh, li ci dooleeku waat it euh, Cheikh Modou Moustapha Mbacké moo digle woon ci xalifaam ñu andi denc ko ci barabu Serigne Mayacine Oumy ni mooy mbokkam moo tax ñu denc ko fii ci wetu barabu Serigne Mayacine Oumy euh, nettali boobu maa ngi ko jëlee ci Serigne Abdou Karim Dieng ñaareelu xalifa Serigne Balla Fally Dieng la ci dooleeku waat mooy am na ko fee nekk ci biir ñu koy wax Serigne maam Moussa Sey bokkoon ci bindkati Serigne Touba yi nga xam ni dañ ko daa bindal alquran yàlla mos koo xiir nag ci mu bind kaamil bu rafet andi la Serigne Balla Fally Dieng Serigne Balla Fally jël addiya jox maam Serigne Moussa Sey bi yàlla dogalee nag sëriñ Balla xool kaamil bi ni kaamil bi sëñ Bamba sama sang ba euh, laa ko yët sëñ Moussa it bi mu xoolee addiya ji mu ni Serigne Bamba sama sang ba laa ko yët bi ñu bokkee ñoom ñëpp ne rekket daje ci ku baax ki di Serigne Touba Serigne Balla jébbule kaamil bi sëriñ Touba di ko yéem mu ni ko kéema ko jox Serigne maam Moussa Sey jëbbule addi ji Serigne Touba Serigne Touba di ko yéem mu ni ko kéema ko jox Serigne Touba ni akasa seen këri àjjana yi mooy sës sëriñ maam Moussa Sey moom mi nag bi yàlla dogalee mu génn àddina ñu koy denc waxtu diggante timis ak gee jamono yooya ak léegi bokkul waaye lañ jàppoon mooy dugal ko ci barabu Serigne maam Mayacine Oumy ñu sës far yàlla dogal ñu sësal ko rëkk ci sëriñ Balla Fally Dieng bi ñu waxee ne ay am na ndax jaawale am na ku fekkee woon jataay ba moo feeñal xissa bi daal di wax ni borom ni la ko tudde woon ci la xissa bi génne sëñ Abdou Karim moom itam euh, sëñ Abdou Dieng Balla Fally mi nga xam ni itam moo fi jëkk a wuutu sëriñ Balla Fally Dieng moom itam fii lañ ko denc. Serigne Abdou Dieng Balla Faali moo ko njëkk wuutu 1940 ba 1988 Serigne Abdoul Karim Dieng mooy ñaareelu xalifaam 1988 ba 2021 Serigne du Balla Faali wuutu ko ci lu tolloog at 2022 mu wàccu liggéey. bàyyee yan ba cheikh Mouhamadou Mourtada Dieng yàlla na ko fi suñ borom yàggal lool sàmm ko te wéral ko ba mu àggale ci sagoom te ànd ko ak nasut baayam wa maamam yépp aw fan te la won ca siidi balla feeli